est-ce que nekkul ne tamit ñoom liñ ne de laata ñëw na si yow euh, directement seet yeneen kilifa diine est-ce que nekkul loolu moom moo moom moo tax euh, nga xam nga leeral naa ma ne ñoom jaar nañ sama ñaari doom waaw mais xam nga waaw dégloo rek jëm si ci man parce que mën xëy na mënuñu gën a yegg si ci man directement kenn ka maa ko jur arab yi xam nga ko xam naa ko keroog génne naa audio bi nga xam ne ñoom te audio ba ñu ngi ko tëjee ne ñu sommes preneur de votre aide matérielle et financière loolu ci olof. ko yónnee woon ñëpp. waaw déedéet xaw ma leen man bi ma jot laa xam. mais la ko yónnee nekkul man du ma arabi ñes lu ñu lu ñu utee man la ut moom mooy sama loxo mooy sama doom quand même ñu teg doomam quand même. mënoon na ñaan non dafa boo buggee dugg ci jàll da ngay dugg ci malhonnêteté intellectuelle bu ci dugg non non non man sax maa ko dul nangu docteur loolu boo nee sa doom lañ wax waxul ñoo ak xam nga loolu mooy mal loo nekk intellectuel bu dugg ci loolu bu respecté ñi lay déglu. si respecté naa leen. waaw kon nag dama ne bu dugg ci. Ah, affaire sa doom sa doom. Mhm. mooy yow bu utu sa doom nañ koy ut yow ndax daf lay wutu bu ñu ñëwoon fekkuñ la fa ñu fekk ko fa dañu ne ñëw nañ doom lañ waxal kilifa yu bëri seen doom lañ waxal ak seen i jarbaat ak bul dugg ci loolu kenn ki mooy Seydina Aliou Ndiaye mii nga xam ne bër keroog oo nga ko fi. ñoom ñëpp ku ci ne oo nañ la ne la nangam ñu wax ma ko waa sama directeur cabinet mii mi ngi toog tontoo ma leen dégg ndax tamit nekkul contentieux bi nga am ak. amuma contentieux ak kenn. Cheikh Omar Diagne amoo leen contentieux. damaa xam sax kuy Cheikh Omar Diagne yow yaa xam kuy Cheikh Omar Diagne man xaw ma ko wallaahi xaw ma ko mosuma ko gis dégg nga aw ma contentieux ak ñooñu ñëpp xaw ko sax xaw ma ci bokkam déet man ji nga man li may wax man bu dee jënd jënduwuma ndax bi ma yàlla mayee lu valeur cent milliards ak léegi yàgg na dégg man jënduwuma xuppuwuma awma lenn loo xam ne maa ngi koy wut am naa déjà cent quinze ans demoon naa sax ba ne damay retraité retiré mhm. waaye dama ci am màndarga ndax sama waajur yi ma jàngal mhm. formé ca ma lislaam doo toog fii di wax dañ ma ne boo toogee di di di di tasaare xam-xam di waxtaan ci yàlla ak yonent bi ba màgget te ñépp naan la yaa baax yaa kii yaa nangam nangam bàyyil te xam ne yàlla nanguwul sa liggéey nga dem tuubi mais boo waxee ba ñuy jóg di la saaga kon la daloon yonent ba kon yan ci yoon continuer yàlla waxoon na ko jaax na ko sanulqi alayka qawlan thaqila dañ la teg wax ju diis ba mu amee nag damaa solowaat soldaar jëlaat samay aram fas yéen di def loolu may def ba mooy fekkee ci sama borom yenn saa yi day mel ni du la comprendre ndax si niveau bi ngay waxee moo kawe wala ndax si ni nga koy ni nga koy waxee la déedéet gis nga Euh, saxaara mënta rëy ba nga woon ko gumba mu gis ko dégg nga yàlla wax na ko ne innaha la taamal absaaru walakin taamal qulubu lati fi sudur mu ne bët mën naa ñàkk a gumba mais du tax mu gis su fekkee ne xol ba moo gumba ji nga fii Sénégal dafa am révolution bu ñu war a def wax ne feet dañul Sénégalais fu toujours à côté du chemin la ñuy jaar ji nga soixante sept pour sept Sénégalais sur dix gëm nañ affaire dëmm sept Sénégalais sur diis gëm nañu ne ki nga xam ne mënta jot ci yàpp moom li gën a nooy ci li muy lekk mooy ndambe ñu ne resu moo lekk resu diw wi te doo dem këram ba fekk fa yaxu ganaar ganaar du yàpp duy xeeñ ca kër ga mm. ñu ne kooku day lekk nit te du ko laal Sénégal yi set Sénégal yi surtout ñu ngi koy gën feeg weddiwuñu loolu dara Sénégal yi ñu ngi rey ay nit fii ci mbedd mi parce que nee jiw diw mii bu rombee day sàcc sa awra góor dem ak moom. awra. waaw te ñooñu mosuñ cee dóor kenn wala ñu rey ko fekk ci poosam benn awra walla ñu laaj waa wala waa jënd sàcc nañ awraam bu ñu fa demee fekk fa bosam. te loolu ci suñu credo lu bokk lu mu bon bon quatre Sénégalais sur dix gëm nañ loolu. am na sax ñoo xam ko nuyu xamul ci mbedd. très bien loolu lañuy ñuy daw très bien. Mhm. de boobu la bëgg a wax ni la Sénégalais dañoo jël suñuy réalité de ko ci ay fake ay faux loo xam ne dara amu ci nga aw àggul sax ci nekk ngelaw ñu jël gëm-gëm nga yooyu teg ko ci borom di gëm borom bàmmeel ni moom. yow da ngay ci bàmmeel nga jëm nga ne yaa ngi gëm ki nga xam ne dèjà moo la juti ci bàmmeel comme sàcc boo xam ne dafa gëm ne moromu sàcc mam fekk ci biir kaso moo koy génne bu ko mënoon a génne moom ci moom noonu dugg Sénégal yi dañoo bëri ay fausseté yoo xam ne ci la tabax nag tout ce qui est apparent loolu lañu war a xeexal boo amee kuy waare ci loolu la war a waare pour que nit ñi au moins collé à la réalité mais sénégalais mooy nit ñoo xam ne da ngay dem ci koo xam ne amul dara dara dara ma ngay taal benn sondeel bu añee du reer nga ñëw ne ko ah man de milliard laa bëgg muy la ah ah milliard waaw nga ne ko téyaalil ci million bi mais kooku. <laughs> yow yaa ngi koy def milliardaire sax yow. nga ne. ma ne ki koy fay sax mu ngi def milliardaire. waaw pour wax la ne la suñu Sénégalais yi dañoo jël. tàngaay yi def ko sedd jël sedd def ko tàng jël kaw def ko suuf jël suuf def ko kaw ba mu taj dégg nga loolu est ce nekkul ñàkk xam-xam si yenn ak pauvreté non loolu fi mu jógee dafa yàgg ci suñu substrat culturel la jógee parce que ba ñëwee fii di jàpp nit ku ñuul di ko jaay def ko marchandise di ko jël di ko jaay mhm. di jël euh, ay nit di leen baxal jël kii mooy bañkat bi ñu indi ko yeew ko ay moromam ya toppoon ci kawam ñu jël bërigo def ko ndox ba mu fee di ko kii ba mu kii ñu jël ko dugal ca biir dégg nga moom lu ñuy wax soode échaudé. Ah, chaudière ah, kon soode si échaudière la. waaw chaudière la jógee ñu ne leen ci ay chaudière ba ñooy jeex ñenn ñi dañ leen gasal bàmmeel dugal ca def ca matt taal ko no léegi ñu toog ba vaincre volonté nit ñi nit nit ñi amatuñ benn valeur ji nga ndomb yi ñuy teg ay ceen la dañ daan jël ay ceen takk ko ci ndigg ci bopp ci ci loxo ci partout nit ñi pour ñu bañ a takk bañ leen a jéng ak weñ ñu jël der deru wuur yi di ko takk pour ne loolu dañ koy dañ koy euh, kéelal dañ koy euh, pour juyoo ak weñ gi maanaam li fi loolu ñu dem ba def ko gàllaaj waaw waaw def ko gàllaaj pour daw réalité bi sénégalais dañuy daw réalité ci nga tey bu àjjuma jotee xale yépp nga gis leen ñu ngay fecc te amu ci kenn koo xam ne ba ngay fecc reer nga wala boo xëyee da am nga loo ndékki waaye nañ fecc te dee donte dañuy dee xiif Sénégal yi nangu ñoo faire face aux réalités qui jeex na dañ na gaw dañuy xeex ay fausses réalités pour se dire que ils eu la réalité loolu ci lañ war a wax loolu ci lañ war a wax mbon mbon du fi jógee ba àddina tukki man bi ma defee man samay jàngat ci réewu lislaam yépp y compris Makka Sénégal ñoo gën jikko ci kaw suuf gépp ñoo fi gën jikko waaw moo tax waaw dama ne déedéet déedéet déedéet waa ànd sàmm jikko yi loolu non non non trop de bon jikko tii la jikko c'est comme en impôt c'est-à-dire que ñu lañ am Makka amu ko Medina amu ko keneen amu ko mais faaw ñu ñàkk ko dama ne ah faaw ñu ñàkk ko déedéet déedéet déedéet ñàkk yow yow nag vraiment yaa ngi vraiment Diallo yow danga ngaa depuis sama ci ni nga meloon mu jëkk da nga te nekkoon beaucoup plus pertinent mais léegi da ngay le langage la rue meloo sama doom meloo noonu delluwaatal fa nga nekkoon yëkkatil sa sa degré de de face à la réalité la réalité est que nous tous nous passons à côté et que tant que nous passons à côté nu serons en arrière Sénégal léegi bu taxuloon na kafe Touba ñu bëri dee ak nañoo xiif ndax moom rek moom ngay mën a am cinquante franc naxee ko say butit sëriñ bi loolu dafa ëpp dafa ëpp il faut que nit ñi jeunes journalistes yi ñun ñii ne dañuy waxal yàlla ak yonent ba ak alxuraan ak leneen mm-hmm. ñuy wax ci réalité yi te bàyyi ay faa moo ñooñ ñooñu est-ce que xam nga tey li gën a mën a indil média xaalis mooy nga publicité les faux médecins c'est que la la, la fausse médecine. waaw tey Sénégal bokk na ci yooyu ma la wax. Mm-hmm. da ngay nit koo xam ne dafay dem ñu médecin yi seet ko boo xam ne kii dafa cancer il est en stade final ñu ne ko mënuñ la dara duñ ko wax sax ne dañu gisuñ dara. Mm-hmm. ñu ñëw ñu ne déedéet loolu tubaab tubaab mënu koo faj loolu góor ga yoonu ndaayaan moo ko mën a faj c'est pas vrai. amul benn feebar boo xam ne tubaab mënu koo faj ñun ñoo koy faj ndax ñu loolu buñ ko amoon tubaab yi dinañu rang danañu jaam danañu tarbiyo bañ xam lu ñuy feebar feebar faji feebar boobu mais dem nañ ba naxee suñ bopp ñun ñoo gën a mën tubaab yi lu tax ko naawaluñu avion ndax defuñ oto buy ne bu xër buñ nax suñu bopp Sénégalais ñi même yéen ñi wax ak ñoom publiquement ñun ñi ñëpp dañ leen di sóob ci ay wax yoo xam ne ay ndax yoo xam ne duñ mës a génn ci problème yi. d'accord